Education is one of the most affected sectors by the coronavirus pandemic. Schools in the Gambia remain closed since March when the first case of the coronavirus was reported in the country. After six months of sitting at home, students are likely to return to the classroom soon, according to the Education Authority, but it is not clear when schools can reopen. Details of that in this report by Ibrahim Akebi Sanko. The Gambia's Ministry of Basic and Secondary Education MOPSI is in consultation with stakeholders including the Teachers Union on putting up tangible measures for the reopening of schools. The Deputy Permanent Secretary at the Ministry of Basic and Secondary Education, Adama Jumba Job, said he is hopeful schools will open soon, but the decision will ultimately involve a presidential directive as schools were closed by an executive order. We cannot give you a date as we speak, and that is not my responsibility. If the date is agreed on, the Honorable Minister would handle. But also, as I alluded to, the close of schools was not a decision by MOPSI. It was from the presidency. Even if we have everything in place, we still need to get clearance from the presidency. And if that is also, that uh, clearance has to be based on advice from the health personnel. They are the experts. They have to advise the presidency. Then the presidency, based on health advice or guidelines provided, now you can open school. But like I said, we are working on something that we will, and we are optimistic that schools will open very soon. While education authorities are setting the ground for schools to reopen, they might suggest to the executive a compensation package to teachers where the school days are increased to cover for lost contact hours. We are studying it, and it's going to be part of the uh, recommendations or resolutions that we will be taking as a ministry to be forwarding to the ministry, I mean, to the presidency or to the executive with all the costings that if you want to make people work up to Saturday, this is what they need to be. Or the GTU is part of our stakeholders. Yes. They understand our problems. They are convinced. Then they take to their membership that this is not the normal thing. It's the new normal. We are still appealing to continue supporting MOPSI so that these Saturday classes would be used as a catch-up for some of the children who cannot come on days. Concerns have been raised as whether schools will be able to implement COVID-19 preventive measures as up to 50 students share a class in some schools. It will be difficult to observe COVID-19 guidelines and for students in populated schools to attend classes from Monday to Friday, according to Lamin A.K. Sanyang, the chairman of the Conference of Principals for Secondary Schools. But what will not work is having schooling as it used to be, let's say from Monday to Friday for everybody to come in. Maybe that might not be possible for, uh, for, for mm, well-populated schools. But for schools that are not well mm, populated, they can continue with the normal or the old norms. But the the well-populated school have to go with the with a new norm whereby you cannot come to school consecutively for five days. Maybe you'll come to school three days in the week or three days in the week. Under the rest of the days, we are recommending we can uh, bring in distant learning. Meanwhile, the Deputy Secretary General of the Gambia's Teachers Union, SSO, said the Ministry of Basic and Secondary Education has been advised to provide water and sanitary materials to all schools before they reopen schools. And not having, you know, water in campus. Yeah, thank you. Three days ago, I was here. <clears throat> Today is my fourth day. I've been here since on Monday. And on Monday, we have exhaustively discussed that, and all school or regional directors were instructed to provide a list of schools that have challenges of you know, water and sanitation. So we are following up to that to ensure that water, which is paramount and key, is available in schools before we can open. Certainly, you cannot open a school without access to water. In March, the Ministry of Basic and Secondary Education implemented a multifaceted strategy to ensure the continuity of learning on radio, television, and by distributing audiovisual materials to online media. However, even the most prevalent form of distant learning such as radio or television often do not reach the poorest or most remote students due to lack of TV or radio sets or poor mobile networks coverage. For iAfrica TV, I'm Ibrahim Kebi Songo. Merci beaucoup. Thank you very much, uh, Ibrahim Kebi uh, Sonko there with that uh, report. Uh, Mon uh, mm-hmm. waaw mu ngi noonu ubbite jàng mi ci biir réew mi mooy schools dañu war a ubbi xam nga ne septembre ba weer bi la school di doon ubbi mm-hmm. buñ tëjaan ci ci ci you know August bi ak yu mel noonu end July waaye ren gis nañ ne depuis match ba léegi euh, xale yi ñu ngi toog ci kër gi euh, demuñ school li ko waral nag foog naa ne euh, ñu ku ne xam na ko mooy mbas mi ak ay jafe-jafe yu indi waaye tey kilifa yaa ngi toog di di lelu seen biir di waxtaan seet naka la ñoo fexe ba gis euh, ndax ay pexe mun nañ koo lal euh, ci mbir mi nu moo demee ba xale yi mun a dellusiwaat ci ci ci ci school si waaye nag euh, li li li li li li mbir mi mooy dafa mel ni ni ñu ko bëgg a defee foog mu ànd ay mesos foog mu mu ànd ay ay ay ay ndimbal yi nga xamante ne nag ci nañ ci dugga te loolu ay dépense la laaj euh, tey gis nañ ko yeneen gis comme ni ñu ko gisee si yeneen réew yi am nañu ko bëggoon jéem waaye doxul si euh, lañ dal di change système indi xale yi nga xamante ne ñoo war a dem si exam fii sax loolu lañ mujjee def ñoom ñoo mujjee dem def seen exam grade 12 ak grade 9 ñu ne ñuy xaar ba léegi euh, tey bu fekkee ne Gambie ñëw nañ bi war a dellusiwaat ci ci school si xale yi feebar bi te comme fi mu tëjee naka sax teachers union secteur li mu wax ndox dafa paramount loolu dafa fondamental right now mooy raxasu bi te soo demee ci ci gox bi yenn school si benn pompe xale yëpp si la ñoo dem mooy pompi loxo yi nii mhm. ñun loolu lañ xamoon ci school si euh, loolu moo fa nekk ba léegi ñeneen ñi sax xëy na amuñ school euh, amuñ ay ay pompe seen school te ñu fa waree dellu si lan lan moo war a nekk taxawaay ci ci nguur gi wala si kilifa yi balaa xale yi di dellu si school bi ah, nu mu dalee yeneen réew yi noonu la dalee Gambia. Mm-hmm. ñiy plan pour euh, ubbi school si yombut dafa mel ni euh, mbir la moo xam ne comme ni ko olof di waxee ndox moo fekkewul bu mooy taa. Mm-hmm. xam nga gars yi ñu ne dugg si óorul. waaye dafa mel ni gars pour ñu dugg si biir ubbite school bi ñeme ñuñ ko. Mm-hmm. waaye dañ nekk di mel ni ku dugal benn tànk rek. ci ndox mi óoluñ da paxam fa ne ñi génneewaat. soo das di problème because ñu ngi ragal ñu ubbi mu am loraange si so loolu bokk na si leen gën jaaxal rawatina sax problème bi yëpp si Greater Banjul area fii la affaire yi gën a doyee waar sax pour ubbi fii school si mhm. nekk na lu nga xam ne nu mu jaaxalee Gambie noonu la jaaxaloon yeneen réew yi nga xam ne tam bëggoon nañ koo def te ba léegi sam boppa yi métti gis nañ réew yu woon nañ Angle ak yeneen réew ñëwoon nañ ba ubbi xale yi dellu ci waaye dañ ci mujjee dal si gannaaw ñëpp si mujjee parce que feebar bi dafa dafa dafa judduwaat ci réew mi loolu lu doy waar la te lu lu lu jara bàyyi xel la ndax matuwaay yi si war ñun mun nañ ko am déet that's the problem waaw su fekkee ne munuñ ko I think bàyyi ko moo gën saafara si jur jàngoro nekk na lu nga xam ne lu doy waar la fu mu gën a garaaw mooy si Greater Banjul area bi mm-hmm. comme noo ko waxee dëgg la bu njëkk pompe yi yëpp benn la dem nekk kon su fekkee ne bëgg nañu ubbi school si foog ñu jël matuwaay gis ne school bu nekk ay box box yoo xam ne danga raxasookaay la dafa nekk te loolu nekk na lu nga xam ne cost bu bëri la si nguur gi moo hmm. school si si mi bëri na trop trop trop trop hmm. school bu si nekk nit na ay many many many box ba pare nit na kuy sàmmoonte yolu ndax xale bu ñëw meeg soo nga ne hmm. raxasu na mu ngi ànd ak face masque liggéey bu mu laaj si fekkee ne réew mi mën nañ ko day kan waaye si fekkee ne mënuñ ko nag fooguma ko te sax liggéey bu jafeñ la amoon parce que fo koy teg muy sàmm ay téeméeri xale seet kan. Hmm. si bunta bu nekk kii raxasu na kii lifinu loolu suñ ko defee woon. te doon amee euh, loolu moom. Mm-hmm. dañ koy change te loolu dafa mel ni lu ñuy xalaat mooy dañ bëgg a stretch. Euh, jàng bi léegi mu dem bi waaw mu wàññi lim bi wala ñeneen ñi dem ba léegi mu dem ba ay saturday mm-hmm. loolu yëpp nañ ko ci boole loolu yëpp ñu ngi koo xalaat te loolu tamit buy am ci ñuy jàngale tamit dina am euh, seen payoor bi foog ñu sóoraale ko ak yu mel noonu ndax ku doon mm-hmm. liggéey contrat bi nga sign mooy from Monday to Friday mm-hmm. ñu war laa liggéey loo samedi xëj na ñu war la ci euh, yokkal timing bi wala wala ci euh, yokkal ay yeneen loolu tamit foog mu ànd ak dépense moo tax mu ne loolu yëpp dana cost bi foog ñoom tamit ñu évaluer seen biir waxtaan bi xam ne fii lañ ko mën a tenk ñu jox ko nag kilifa yi ñoom ñu toog ci ñu seet ndax lii lañ mun lu mun a am la lu lu lu mën a lu mën a nekk la ñu ñu def ko bu fekkee ne tamit amaana du dem foog naa ne dañ koy seetaan xaw ma naka la daal la nii dafa dafa am risque yi si nekk risque dépense mu fa responsibility mu ngi fa xale yi sax te responsibility moo gën a lu gën a garaaw mm. ndax dina mën a nekk am déet si all schools in the Gambia mm. is a problem pour jël responsibility yi yooyu gis ne dina am ñu nga xam ne seen duties mooy ne gis ne xale bu ñëw raxasu na bu ñëw mu ngi ànd face mask fekk balaa moo dugg si classe bi teacher bi tam jéem bàyyi xel loolu moom tam moo tax ma ne responsabilité yi si den bëri ndax loolu yëpp tam ndax am na ñu mën a teg gis ne dina si am 100 pour cent ko bëggee tam Amadou leneen la loo xam ne ni euh, doy waar la absolu dafa doy waar xam naa mm-hmm. daal gàllankoor ñëwoon already waaye nag nii la ñoom tam pour ñu xalaat naka lañ war a def mm-hmm. school si ubbi waat ba gis si solution bu gis nii la waaye toog rek na yàcc rek boobu moom indiwuñ pexe moo tax tam ñu jóge toog parce que ne balaa yàgg pexe mun na am den su ko defee ñu jëfandikoo waaw mu ngi noonu